salaamaaleykum wa rahmatulah yéen waa Sénégal maa ngi leen jaare bu baax euh, di jaare waa Touba man la sëñ Mor Diop seen frère euh, responsable Pastef Touba bon bëggoon nag gis benn benn benn image bu daw yaram ma ne woon naa ko partagé yéen d'abord mooy lii ngeen gis nii ay barigo ay la yoo xam ne diw def suñ benn machine bu ne fii di segal moo moo moom bërigo yi bërigo yi nag suñ jigéen ñi nga xam ne ndeysaan dañoom am jom te nekk ay jàmbaar ñoo jël bërigo yi euh, di ko di di ko raxas ñu leen di fay yaakaar naa bërigo fukki dërëm la su ma juumut moom leen moom moom moom lañ koy raxase dañ koy raxas ba mu set ñu ñu doog mën a fay. day sax dinaa sax bu ji bu bu ji surtout du doo encaissé kon nag jàpp naa ne daal euh, ak régime bees bii ñëw ñu ñu ñun waa Touba ñu xamal ne ko lii daal la fi Macky Sall kon nag moom ñu ngi ko ci xaar muy le président Bassirou Diomaye ak le premier ministre am président Ousmane Sonko kon daal suñu jigéen ñi ñu ngi ñu ngi nii lii la ñuy daj dafa nga lii lu métti lan dëgg-dëgg métti na trop trop fa métti yëpp kon daal bëgg naa ñu bàyyi xel waa tubaa bàyyi xel jigéen ñi Touba franchement te boo bu ngeen dee xool bokk na ci escroc yu gën a mag département Mbacké moo ko def 87 pour cent du ay du ay te jigéen ñi dañ cee participer lu am solo kon daal jàpp naa ni le président Bassirou Diomaye président Ousmane Sonko euh, Macky Sall fii la ñu bàyyi woon xam nga ni bureau fukki dërëm métti na trop lii boo dee calculé mën naa di xaar ay centaine de centaine de bureau kon daal euh, lii la ne woon nañ ko partagé yéen di leen sant bu di leen gërëm jaa ngeen jëf.